Merci, Monsieur le Secrétaire général de la Présidence de la République. Chers concitoyens, bonsoir. Euh, nous nous honorons d'être aujourd'hui ici, dans ce lieu symbolique, qui est la résidence du président de la République du Sénégal, en ce jour tout aussi symbolique qui a consacré euh, l'avènement d'un nouveau président de la République en la personne de M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a prêté serment et qui a passé le pouvoir, ou on lui a passé le pouvoir aujourd'hui en ce jour. Donc un grand jour pour le Sénégal, un jour symbolique. Je voudrais d'abord Au nom du président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, remercier tout le peuple sénégalais pour euh, l'honneur, mais également l'affection qu'ils ont témoignée en sa personne, mais au-delà au projet qu'il porte, le projet que nous considérons pouvoir changer durablement et structurellement le Sénégal. Je voudrais donc, à son nom, au nom de tous ceux qui ont cheminé à ses côtés, remercier le peuple sénégalais pour cette confiance. Je voudrais ensuite euh, adresser mes chaleureuses félicitations au président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et lui souhaiter plein succès la mission, certes exaltante, mais extrêmement délicate qui l'attend. Et c'est à ce propos que je mesure la confiance et l'importance de la confiance qu'il a placée en notre personne, en nous nommant aux responsabilités de Premier ministre du gouvernement du Sénégal c'est-à-dire l'autorité publique qui en charge la coordination et la conduite de la politique de la nation conformément à la Constitution du Sénégal. C'est une lourde responsabilité puisqu'il s'agira de coordonner justement cette action et de conduire les équipes qui devront travailler darrache à la réalisation des objectifs qu'on s'est assignés dans le cadre effectivement de cette politique de la nation qui désormais s'articule autour de notre programme. Programme que nous avons élaboré en commun, que nous avons présenté en commun aux Sénégalais et que nous avons défendu ensemble le programme qui s'intitule Pour un Sénégal souverain, juste et prospère. C'est une responsabilité que nous apprécions. J'ai dit la dernière fois, lors la conférence, de la, du meeting qui a clôturé notre campagne électorale, que nous travaillerons tous à faire élire le président Bassirou Diomaye Faye, mais il ne sera pas question de le laisser seul assumer cette lourde responsabilité. Je voudrais dire aux Sénégalais, chacun et chacune, là où il se trouve, que ce projet est le sien et que chacun devra donner le meilleur de lui-même pour que nous atteignions les objectifs que nous nous sommes assignés pour le Sénégal et non pas pour le président Bassirou Diomaye Faye. C'est d'autant plus important que nous articulons notre action autour de la citoyenneté, de la participation collective, comme le démontre depuis quelques jours cette formidable jeunesse sénégalaise à travers les actions de nettoiement des artères des différentes villes du Sénégal. Donc, je remercie encore une fois le président Bassirou Diomaye Faye, lui témoignant ou le garantissant de notre loyauté, mais notre dévouement également, en tout cas à la tête de l'équipe que nous allons former. Nous donnerons tout ce que nous avons